dal leen ak jàmm mbokki internet yi niki tey nag nekk 64e anniversaire bu Sénégal gannaaw nag indépendance tombek nag ayub ki nga xam ne rek moom moo di euh, président Bassirou Diomaye Faye euh, mën nañ ne nag mbir minimel tax na nag ñu bare bari daal di jot génn rek pour nag assister li nga xam ne rek moom moo di feet goo xam ne jàpp nañ kenekat feet gu nar a neex la ci ki nga xam ne rek moom moo di euh, président de la république bi nga xam ne rek daal di nay jot a remplacer président sortant président bi nga xam ne rek toog na fi fukki at ak ñaar muy président Macky Sall ni ki tey gannaaw ba mu daal di génn rek ñu amal li nga xam ne moom moo di cérémonie levée des couleurs foofale ca palais de la république ni ki tey ci suba gi nekk loo xam ne rek jàpp nañ kenn ñu bare bari sax wuñ ko doon télé am na ñenn na ci ñi nga xam ne rek ay om lañ joo xam ne rek ci wàllu administration la ñuy liggéeyee daal di jot a fekkee ni mel nekkat simple lañ ko dal di def gannaaw ni nekk rek premier jour gannaaw nag ba ñu ko daal di tabbu rek niki le deux bi daal di passé moom mii di président ba Bassirou Diomaye Faye niki tey nag mu daal di fas yéene amal lii di ay liggéeyam doore kook ba ñu ko tabe ba jamono bi ñu toll ni niki tey nekk premier jour bi nga xam ne rek daal dina koy feete li nga xam ne rek moom moo di 4 avril foofale ca palais ba di bis bu nga xam ne nag bis bu neex lool la ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalais fal ko jox ko seeni carte booba ba tey ñu jàpp que ni kat du leen masa daal di euh, rusloo fii ci réew mi di Sénégal ak ay kàddoom ya mu yëkkati ni ki démb ci préparation bi nga xam ne rek jot nañ ko amal ci lépp loo xam ne moom la namm ci réew mi di Sénégal liggéey ba nga xam ne rek daal di nañ koy sumb naka la ñuy def ba réussir ko nekk benn poñ ba nga xam ne rek ca la dal di focus moom mii di Bassirou Diomaye Faye nekkat fas yéene naa daal di mottali li nga xam ne rek moom moo di yéenem fii ci réew mi di Sénégal mbir mi ni mel nekkoon li nga xam ne moo gënoon fees ñu dikkoon pour dégtal leen ko di leen di jaajëfal ci topp gi safoo gi ak faale gi